xaalis bi ñuy jël di ko jëndee connexion te daayira bi do tek bu dee gàmm gi do tek loolu ñaanu ba ci loolu jigéen yi ci bari dal na leen dañ da wax naan dépense buñ joxé ñu yok ko légui lu ñu naroon a yokkee dépense jënd nañ ko connexion tay di togg ci di snap ci ba mom du mëna a jaar dana xëm mbaa mu mais fo tollu da ngay debbu nokk sax di snap lélé nga lire vocal bëgg tontu do xam sax ba xam roof nga jël wala roof